am na yu ma rafetlu am yu parce que di interdire ay marché fi di dorater te sa ko interdire li nga indi force de l'ordre bu genn wàll gi ñewon de marché bi yoy duma ko rafetlu Sénégal waron na passer fu interdire marché prétexte Ousmane ki arrêté Ousmane Ngom lay ndax prétexte bobu man ma ngi rappeler bokon na ci ñi nga xamni doon réunion jamonoy Ablaye une socialiste doon nañu bokk ci ñuy réunion ni dañuy def par force dañuy def biir assemblée biir biir place de l'indépendance te boobu Macky mu ngi ci opposition bi am na réunion yoo xam ne sax ñu ngi ko defee guddi gi man Mbacké Seck docteur Malick Diop ak ñeneen point ak feneen donc tey man foogoon naa ne loolu lañu doon xeex tey moom Mamadou Diop dee ci keneen dee ci duñu nekk ba nëga ni ñoom ñuy wax ay arrêté Ousmane Ngom je pense que bu doon pour arrêté Ousmane Ngom la ñu waroon suivre lañu la ñu kon continuer di ko suivre kon waruñu woon jëlee régime Wade bu dee régime Wade lu ñu fi bàyyi baax na kon yow jëlu woon ñu leen fii jëlee man je pense que démocratie moo toll foo xam nit ki bu bëggee wax bàyyi ko mu wax li wax na jaar yoon nekk te bañ yàq réew mi bu bëggee dox bàyyi ko mu dox mais ñeneen ñaa ngi dox seen i soxla mais léeg-léeg loo xam ne nit ki sax attiré wul woon attention am ci loolu il suffit que léegi nga interdire ko rek bloqué dëkk bi nit ki yëg ko paf di génn nañu Karim Khalifa Sall da ngay gis dëkk bi débordé tey bu ñu ñëwoon Karim Wade ñëwul une semaine deux semaines ñu ko nama seet ko dëkk a am na ci loo xam ne jaru ko fi te naxante bi dafa bari aussi affaire courant bi li ñuy ministre bi waxoon ñëpp kon ñun dañ ñoo yëpp man je pense que am na loo xam ne bu ko kilifa waxee te du dëgg dañ ko war a déglu assemblée nationale daf ko war a déglu réew mi aussi am lu mu ko topp parce que réew bi doxee noonu réew doo doo da ngay wax la ngay neex la la neex ndax nit ñi ba déwén ba élection bi passé nga la ma waxoon amatul te Sénégal aussi dañu wara tok toog waxante dëgg Macky Sall war ñu déggoon ni franc dañ koy changer ba Alsan Ouattara dañ ko wax Sénégal war na am débat bi officiellement Macky Sall war na wax ak ñun war na premier ministre amatul sax wanté loolu sax dama ko regretté tay bu premier ministre amoon dama na premier ministre dem assemblée jàkkaarloog député wax ak ñom député yi posé ko ci question économiste yi laaj ko parce que tay 2020 matatul at ñu wara soppi monnaie bi monnaie bi ben euro ñaata CFA la ñaata éco lay est-ce que do am inflation est-ce que du une sorte d'évaluation bu nous caché n'est-ce pas bu nous maquillé yooyu yëpp ay débat yu ñu war a waxtaane problème du pétrole tim bi nañ ci waxtaan mu leer nañ gaz bi pétrole bi nañ ci waxtaan mu leer nañ président il mu fi que lan terre bi mën na gën lan moo aéroport Blaise Diagne n'est-ce pas Dakar Dem Dikk problème yi aéroport Blaise Diagne daa aéroport moomuñu ko ay turc ak leneen ñoo cay dogal mais pour lan loolu ban intérêt la Sénégal am autorité à péage ko évaluer il a Touba bi ak beneen bi ñu xam Sénégal. est-ce que war nañu jël koo xam ne li mu ci investir bariwul may ko yenn année yu bari yi Sénégalais yi di ko fay loolu mooy ndeyu lan man ci pense que Sénégal dialogue national bi ay naxee kese la dialogue national boo xam ni yaa ngi ko téye installé go président bi te chaque jour nga jël ndogal bi dialogue bi waroon jël bu la dialogue bi waroon na proposé jël nga ndogal yëpp mais dialogue national pour lan na léegi élection bi dàq nañ ko pour lan na léegi dialogue national fa muy mujj mooy dàq législative amatul sens dara amatul sens naxante bi dafa bari ba paré une opposition on xamné ne kenn xamul lu muy saf bu tay ñu saf jeun bu suba ñu saf géej kenn xamul fu ñuy taxaw tay train xolé opposition tay Sénégal sax société civile bi la mais man ak sama classe ci opposant pouvoir contre pouvoir mais ku ma ndey am ndey ku amul ndey ku àndul ak régime ñu duma la maire bi bu fekkee ne àndul ak régime am dana am lu jàll perception dana am sous préfet bi lu mu kii mu bloqué ko te bu fekkee ne ànd nga ak réew mi lu la neex def soxla autorisation dara loolu moo tegewul fenn ministre conseil nañ ko évaluer ñaata lañ ci am institution yi tekkiwul dara nañ leen évaluer ñu tas leen parce que mënoon da nga am problème mu xaalis ba yokk courant beeg yeneen moment boo xam ne budget présidence budget yaa ngi ko gonflé gonflé ay milliards lu jeex yàq la yaa ngi recaser ñoo xam ne chaque jour ñu ne ma fi ministre conseiller diw nangam te réew maa ngi sonn kon boog loolu du yenu maanaa yaa ngi yàq xaalis moment bi ba pare ni da ngaa soxlawaat xaalis bay tajj sénégalais yi te yokkoo seen salaire du yoon. si am na recul démocratique am na kooku moom dama ni la am na parce que tey li la koy woon tey ñun dañuy. faral di di di di tagg vingt di tagg le 23 juin tay bo xolé ci date de repère démocratie 23 juin la wax mais 23 juin Ablaye wad def ne yéen ñi and ci li al taxaw leen nii ñeneen ñi and taxaw leen nii ñii marché lii di tak ñuy fay di négocier ba jammam mais loolu démocratie mais fi dañ naan la doo fi taxaw ah dama ne recul démocratique wessul parti politique yi nekk fi nga tok ba si ak ni parrainage am. recul démocratique weesuul nga wax askan bi dama lii laay def ci ay at wala nii lay doxee nga bàyyi ba élection bi jege nga ni carte électeur yu yàgg yi mën naa ñëw andi suñu xaalis bi ñu ci digaloon recul démocratique weesuul avec conseil constitutionnel nga def ko décision conseil constitutionnel ah conseil bi kat nee na euh, euh, mënatuma def cinq ans sept ans laay def ndax loolu moo ci nekk mais conseil bi waxoon ne tamit ne maire yi cinq ans lañu def te pourtant yaa yokk

déclaration de patrimoine yi ministre yi man déclaration de patrimoine boo même boo déclaré bu ñu la dàqee doo indiwaat li nga indi ban bugul ko fi jaroon naxe mbaay bi la war a bàyyi naxe bi la war a bàyyi. man moom boo bëggee dégg dëgg dama décourage ci politique gëmatuma sax soreewaat ci ndax li ma ci gis dafa dafa ma neexatul sax parce que man dugguma ci pour wut dara parce que yàlla dimbal na ma immigré ba am li ma am ba pare wutuma ci lenn mu tax salaire u sax aw ma ko imaam yi laa ko may.

at mu bees bi suñu digganteeg bitim réew ak éco yooyu na yëpp leer at mu bees bi daal yàlla bu ci kenn manqué du ñàkk sax ñu yàlla jël waaye daal surtout ci ndaw ñi yàlla leen yàlla bàyyi fi réew mi am dal at mu bees bi tamit 2020 na fi élection locale yi am tàllal bu bu guddi bi baaxul ne élection locale bi am te tamit ñu bañ fi xalaat sax di renvoyer élection législative yi bu dee moo tax ñuy randal bii di ko randalaat pour que nous en 2021, l'élection de 2022, pour en prétexte dans le ce n'est pas la peine de 2020, mais parce que 2022, élection législative, d'avoir. Parce que la cohabitation, pour que l'élection, après ce mandat, nous